faqaa ndem luuju na faqaa tem weccu faxala yu war na ko alxadaaw fay ga luuju mooy nga sàkk wecc mi nga xam ne yooyu taxawee ci yaa ko def ne mu dugal baaraam ci gémmam rek ñor bi mu ñëw kooku moom fay ga na ko jawar wa isa xaafat ndem ragal na alxaamilu aji ëmb ji xalaamaa ci la nga xam ne fii batniha nekk na ci biiram aftarat mu dog walam tutxim tadu lele waxar ci li waxees na it ne tutximu dana lele nee na bu fekkee ne dafa ëmb moom jigéen ji ñu toll ci jamonoy koor nag mu ragal ne su wooree dana wàññi dara ci ëmb ba kon moom am na sañ-sañu bañ a woor am ñu ko digal nag mu lele am ñu ne déedéet du jar muy lele du jar muy lele ji nag moo gën a wóor day fay rek waaye lele du ko ci war daañu wax lan mooy lele nag moo tax mu ne ba mu ne walam tut xim te du lele jooju moo gën a wóor waxat xi la waxees na ne tut xim dina lele waaye ñàkk gi lele njëkk wax moo gën a wóor walil moo ba xin ñaan la aji nàmpal ja in xaafat dem ragal na xalaa wala bi xaa ci doomam ja walam tëjit ti amut maa loo xam ne tëst ajiw dana ko fayale la wëññal ko waaye lam yàqbal wala doom jaa nanguwut xëy raxaa ku dul moom yaay ji ñeel na ko an tuftira mu dog wa tut xima te muy lele nee na kuy nàmpal ragal ne bu wooree doom ji dana ci amee ngaañ te amut lu mu ko mën a fayale keneen kooku nàmpal ko ba am na ko waaye doom ji moom moom yaay ji rek la nangu nanguwul keneen kon moom mi nàmpal mën naa bàyyi koor ga di nàmpal rek bu ko defee nag dana lele moom dana fay ba noppi lele boole ci kon kuy nàmpal te doom ji nangul ku may moom mbaa doom ji nangu na keneen waaye amul lu mu fay keneen ngir mu nàmpalal ko kon ndegam bu wooree dana du ngaañ ca kookee mi nàmpal kon day bañ a woor rek ba noppi nag ba àggee ci waxtu fay mën a fay daal di fay su ko defee nag du tee muy lele dañuy wax la ba tey jigéen ja nga xam ne moom la ñuy fay muy nàmpal bu fekkee daa loru ci loolee ñu koy fay ca nàmpal ga nga xam ne bu ko amut dana loru kon mën naa bañ a woor tey nàmpal ba tey bu fekkee ne xale ba sax moom rek la nangu moom kooku nàmpal ñu koy fay ba tey kon dana jar mu bàyyi koor ga tey nàmpal xale boobee nga dolli ci koo xam ne day liggéey ñu koy fay te loolee ñu koy fay moom rek lay sukkandikoo amul leneen ba tey kooku sañ naa dem ca liggéey ba te bu demee ba amee ca lor rek daal di bàyyi koor gi maanaam day fanaanoo woor nag dem ca liggéey ba nag su demee ba nar a loru nag ngir koor ga daal di bàyyi koor ga waaye kenn du ko wax ne ko ndegam boo demee ci liggéey ba rek da lay tee woor faaw nga bàyyi liggéey bi déedéet ndegam liggéey bi ci la léppam aju amul fenn fu mu sukkandiku kon day yéene woor ba noppi nag dem ca liggéey ba su demee ba ca biir nag mu amee ngànt loo xam ne mënta ñàkk a dog nag mu daal di dog wa yustahabu def na sopp bi chef yi ak góor ak kabir bi aju mage ida aftara ndem dog na ay yuttaxima mu lele nee na góor goo xam daa mage mage goo xam ne li ko des ci dund yaakaaru te mën a woorate waaw kooku kon koor wàcc na ko waaye sopp nañ muy lele bis bu ne rek mu génne lele bi ñu la bëgg a wax bu dee koo xam nag moom jamono yi mënta woor waaye yaakaar dina am dina àgg ci ay jamono yu mën a woor day bàyyi ba ak jamono yooyu fay wal itxaamu lele ga fii xeesa ci li kulli léppam mu dul mel mud lay doon an kulli yam wél si bépp bis yàqu bi ba dana ko fay di ngay dégg lele ba tey nee na lele mooy rek buñ ne war naa lele yeeñu bis yi nam toll bis bu ne mu joxe ca ab liibar mbaa nga joxe liibar dara wa kasaalika naka noonu yutximu dana lele man ka nga xam ne farata sàggan na fi qadaay ramadan ci fay ramadan xataa daxal ba tàbbi xale yi ci moom ramadan ramadan aaxaru jeneen nee na boo amee baru koor ci weer wii bañ àggee ci weeru baraxlu wa mën ngaa fay ndax amu ci benn ngànt bu lay tee fay nga bàyyi nag ba weeru baraxlu wa jeex ba ramadan ñëwaat te jotoo fay bar boobu kooku nee na xam nga bar ba léegi wàcc la waaye ne dañ ci boole alamaan la léegi alamaan bi mu taxu ko métti loolu mooy léeg-léeg gi ñu waxoon léegi moom koy def mooy ba àggee ci dafay bor boobu nga xam ne da nga cee sàggan bis bu ne rek nga joxe am mudd bis bu ne nga joxe ak liibar muy alamaan ba wala siyaama déet koor xala sibiyaani mu war gone ya xataa yaxtalima ba te géntee alwalaa mu ngóor sa waa tax yi ba tey mbërëg aljaariyatu jébéeru ba moom bu waxi ca kàllafe ga lazimat mu leen di ware amaalul abdaani jëf yaram ya faridatan mbir mu muy farata qaalallahu su borom wax na subhaanahu sëréel naa ko lépp leelu ci moom ba isa balaxa ndem jot na al atfaalu gone yi min kum ci yéen alxuluma gént fal yastazino kon nañuy diisoo dañoo wax ne nag koor moom bu dee ci wàllu gone dafa wuuteeg julli ndax julli moom nañ ko waxee woon bu amee juróom-ñaari at rek ñu war koo digal julli bu amee fukk nag moom bu ko digalee mu bañ sax nañu ko dóor koor nag moom nee nañ waru ko te soppuñu ko ci moom ba kera muy kàllafe ndax jëf yaram yi moom balaa war gone mu dem ba kàllafe te la cay takk-takk mooy ba su boroom di wax ne balaa kenn dugg ci ab néeg na diisoo mooy néeg lu njëkk bu njekki-jekki dugg daa waxal ne gone yeeg jaam yi moom am na yetti waxtu yoo xam ne buñ ko diisoo rek mu baax te mooy waxtu suba waxtu yeewute ak waxtu bëccëg nga xam ne xëy na kooko summiku ndax noppalu ak waxtu tërte yetti waxtu yi loo xam ne gone yeeg jaam yi bala ñoo dugg ci seeni néeg nañu yëg lu njëkk ndax mën naa am bu njëkkee jekki dugg fekk melo wa ngeen nekk bëggu leen ku leen ci fekke noona lu bokk teet yooyu moom gone yi mën nañoo jekki-jekki rek dugg bu dee mag nag moom day diisoo saa yu nekk niñ ko waxe woon léegi suñ borom ne nag gone itam buñ demee ba kàllafe dañu yëglu di diisoo ci waxtu yépp bala ñoo dugg tegtal la ci nekkoon gone yi li fekk ñuy kàllafe jëf yaram yi waru leen buñ demee ba kàllafe na leen door di war kàllafe nag bu dee ci at ci yoonu Malik muy góor muy jigéen bu amee fukki at ak juróom-ñett rek kàllafe na bokk na ci màndarga kàllafe nag sax kawaruk naq wala am maniyu bokk na ci itam bu dee jigéen gis deret li ñuy wax baax muy régal wala ëmb yooyu yëpp tegtali kàllafe la wa man asbaxa ku xëy junuban di aji ame janaaba wala mu yatataharate sanguut aw imraatun wala jigéen xaaidun ji aji mbarëk taxurat jot taxurat jot laab na qabla alfajri njëkk fajar falam yaxtasilaa te sanguwuñ ñoom ñaar illaa baad alfajri dara ci gannaaw fenk ku fajar ajji sa ahuma kon doy na leen ñoom ñaar sawmu daalikal yawmi woor boobale bis maanaam ku ame woon janaaba ci guddi gi moo xam janaaba jotee ko waral wala gént moo ko waral waaye daal moom yéene naa woor rek sanguwul nag ba fajar fenk ba suba jot sax ñoo ci yemoo koy dutee koor ga moom baax na xanaa rek na farlu ci gaaw a sangu julli suba bala ko waxtu suba waa raw muy amee bàkkaar rek ba tey jigéen ju amee woon dereti mbërëk mu laab nag ci njëkk fenku fajar daal di yéene woor yéex a sangu nag ba gannaaw bu fajar fenkee la door a sangu kon koor ga baax na ñàkk gaa sangu ca guddi ga njëkk fenku fajar ga du wàññi dara bu fekkoon ne nag moom setul ci deret ja ba gannaaw fajar fenkee la door a set kon bis booba du ko mën a woor bu ko wooree itam du baax wala yeju soodu dagan siyaamu yawmil fitri woor bisub korite maanaam tey buñ ne bisub korite la day araam woor ko xam ne bu fekkee da ngaa jóomoon ci kumte ga woor ñaar ko juróom-ñett su wóoree ne moom suba weeri feeñ na rek bul ne man wëtaleguma te am nañu am nañu ne weeri feeñut bu gëmee ne weeri feeñ na rek moom da ngay daal di wóoree rek te xam ne kon da ngaa jóomoon ca ca ca kumte la nga fay bis waaye bis ba ba ñëwee tey bisub korite la moom day araam woor ko wala yow mi nax yi du caageen bisub loj ba maanaam bisub tabaski bi bisub fukkeel ba mooy itam day araam woor ko wala yosoo mu du woor al yow may ni ñaari fan ña al lësee ni ñaar ña nga xam ne baax da yow mi nax yi nekk nañ ci gannaaw bisub tabaski ba illal ma tamate ndare ka def tamatu al lësi ka nga xam ne laaye ji du am xaddiyan xaddiyu daa wax ne nag bi ñu tey la bisu fukkeel bi wax ne araam na ko ko woor ñaari fan ñu ca topp xam nga ñoo tam dañoo dem ci tabaski yi ndax tabaski ñetti fan la bi ñu woon tey la fukk fukk ak benn fukk ak ñaar ci ñetti fan yëpp bi ci tabaski lañ fukki bi daa gën a màgg rek kon ba tey ñaari fan ñooñu doo ca woor benn lu may da nga doon aj ba noppi nag def tamattu ñu waxan la nag ne la bu fekkee amu addiyu na nga woor ñetti fan su boobaa nga mën a woor ñaari fan ñi nga xam ne moo sës ci bisu tabaski boobu le waaye bu fekkee defoo tamatu daañu wax lan mooy tamatu ak xiraan ci kanam bu soobee yàlla wala yow mu bis ba arraabi bay aji ñeenteel laa yesu mu du ko woor mu ta tabihun aji coobarew bis bi nga xam ne mooy bisu ñeenteel ba ci boo tàmbalee waññi ci bisu tabaski bi ne bi ñu woon tey jii di dibéer mooy bisu fukkeel suba mooy doon ñaareel gannaaw su ko nekk ñetteel bi ca toppaat nag mooy ñeenteel ba waaw moom itam naka noonu koo xam ni soroo ko woon mbaa nga nekkoon ci koor gu toftaloo bul ko woor lan ngay coobare ngir yàlla rek bul ko woor lu mel na nga koo nisaroon nag moo tax mën naa waye soo muxu dana ko woor man koo xam ne nadaraxoo nisaroon na ko aw man wala koo xam ne kaana nekkoon na fii siyaamin ci koor mu tataa bi nguy aju toftaloo xam ne saali gi ci njëkk loolee koo xam ne nga koo nisaroon woor naka jekk mbaa nga nekk ci koor gu dul susaloo moom kon baax na na nga ko woor waaye bu dul loolu rek kon bul ko woor kon aftara ku dog naxaar ramadan ci bëccëgu ramadan naas yéen mbir muy aji fàtte te wax ci wolof juubu te xale yi war na ko alqadaawu fay faqat doom dina boo waree dog waaye tëyoo ko da nga koo fàtte woon rek ne ci koor nga nekk doo ci am bàkkaarte fay rek moo la cee war baka taalika naka noonu man aftara ku dog fii ci moom li darorat ngir lor min maral niñ ci tawat ba tey boo dagoon ci weeru koor waaye ngant tax ni ki dangaa tawat mënu ko boole koor nga dog dal du ca nekk ak am na sax foo xam ne moom dog du mën a ñàkk mooy bu la wóoree ni boo dugul faatu dog day war bu la wóoree ni ba tey boo dugut am sa cër bu laatu ci yow mel ne say bët dana gumba mbaa bu demee noonu te war nga dog koor gi ndax sàmm sa bopp sa bakkan say cër lu war la ci yow ba tey nag bu mettee waaye àggul ci lu lay gaañ waaye teewul metti na rek man ngaa daal dog yow mel na nga dog ba noppi rek fay yem fay fay rek moo la ci war moo man saafara kuy tukki it safaran ab tukki tuq saru boobu def na wàññi fii ci moom asalaatu julli ga fa la ñeel na ko ay yuftara mu dog wa in lam tanalhu ak doonte jotu ko sax ak doonte jotu ko dararut lor dina boo ñu tukki ci yoru koy tukki boo xam ne mat na doxu wàññi donte xam nga ne sax doo sonn ci tukki bi da nga teel a àgg fa nga jëm itam bu tey bu la neexee bañ a woor mel ne ngay bàyyi ko fii ci oto yi dem ci xaaju guddi ndakaaru ci jamonoy koor gi xam nga da nga àgg ndakaaru bu teel tey jamono ci ot sedd lay doon ndakaaru sedd sedd sedd bu sedd bu métti nga fa fekk kon xam nga du métti def dara waaye du tee sañ ngaa bañ a woor ngir loolu nag waaye day aajowoo nga tàmbali tukki ba balaa fajar a fenk mel ne ngay dem ci oto yi dem ci njëkk fajar di fenk waaw te it naka jekk nga jàpp na bañ a woor waaye boo xasee jàpp woor moom bu xas tàmbali koor gi moom bala ngaa sañ a dog ci yoon yi da ngay dem a dem ba am ngànt ni ki mu metti boo dugul gaañu mbaa yooyu mooy tax nga sañ a dog waaye ndegam moom faja xas na fenk te koor nga jàpp naka jekk ba yaa ngi ci koor gi moom doo dem ba ci yoon yi rek nga ne man kat ci tukki laa nekk daal jékki-jékki dog te da ngay am ngànt njëkk nag loolu jot la loolu jotee nag nga mën a dog ci yooyu jamono day tax nga mën dug daal mooy ci guddi gi nga yéene woon bañ a woor te it tàmbali nga tukki bi laata fajar di fenk waaw kooku moom kon yaa ngi ci bañ a woor donte xam nga ne doo sonn it noonu wax misaal ci ndakaaru moom mën ngaa bañ a woor waxal li war na ko rek aw xabaaru fay te wa sow mu koor ga ahab moo gën a sopp ilinaa jëm ci lu malik te ndegam mën ngaa woor doo ci sonn moom nga woor benn yoon tàyyi cee fayante moonu gënal wa man saafara ku na ma tukki aqalla lu yées min arbaxati burudin ci ñeenti barit fa ganna te mu jort ne amal fitara naka dog mu baax lu ñu daganal la loxoo ñel ko fa aftara te mu dog fala kafaara tiit kafaara xale yi di ko war waxaal yi war na ko alqadaawu fay rek dina bu fekkee da ngay tukki ci koor gi tukki boo xam ne méttul doxu wàññi te lu da ngay waxoon léegi na mat doxu wàññi doxu wàññi am ñu ko tolloole sultaan douze kilomètres am ñu ko tolloole quatre-vingts quatre-vingt-trois jëm noonu jëm kaw diggante boobu daal lay toll moom nag diir dañu tukki méttul loolu waaye daa jé daa dégg rek ñu ne kuy tukki ci koor mën ngaa bañ a woor ba loolu tax na mu bañ a woor kon kenn du ko alamaan dañuy jàpp ne dëgër bopp ak ñeme yàlla tax ko bañ a woor daa defoon ne sañ na ko rek kon dañ koy bàyyi rek mu fay te bañ koo teg benn alamaan wa kulli man képp koo xam ne aftara dog na mu ta awila mbir muy aji taawil fala kafaara déet kafaara xale yi di ko wax maanaam koo xam dëggam dëkk ci ramadan dëggal boppam ñëwee yàlla taxut dafa fu mu ko sës ci sësuwaay bu wóor bu mu defee ne rek defee na ne mën na koo tax a bañ a woor maanaam daal daa bañ a woor ngir defee ne ngant sàngam may na ko bañ a woor ndekete yooyu moom kat waroon naa woor koy du tax ñu teg ko benn alamaan fay rek moo ko cee war ndax moom dëgër bopp tax koo def loola taawil mooy jàpp ne nangam sañ naa ko dafa am nag at taawilu al qarib maanaam taawil gu jege mooy koo xam ne boroom taawil gi daa wóoru ci sabab su wér a wér nga tax ñu naan at taawilu al qaribu mastanada saaxibuhu li sababin mawjoodin des na ko misaale nag koo xam ne daa juubu maanaam daa juum ci koor gi lekk mbaa mu naan jàpp ne nag léegi suñ naa wéy rek lekk ak naan ndax day fay doom fekk moom bu juuboo xam nga daa war a jàpp bañ a lekk bañ a naan mu defee ne moom nag bu xasee juubu rek mën naa lekk mën naa naan wéy kooku bu lekkee naan wéy du tax kenn alamaan ko mbaa mu amee woon janaaba yéex a sangu ba gannaaw fajar la door a sangu defe ne kon nag moom bu wooree itam du wér ba loolu tee ko wóor mbaa bu muy xëdd fajar daa jege mu defee ne daal ndegam bi muy xëdd fajar jege na noonu daal bu wooree itam koor ga du wér ba tee ko woor mbaa mu ñibbisi ci guddi gi jàpp ne suba am na sañ-sañu bañ a woor mbaa muy tukki tukki boo xam ne mëtul doxu wàññi tuddoon nañ ko léegi sax mu defee ne daal sañ naa bañ a woor mbaa mu gis teru tel korite ci bëccëg maanaam mu xaar ba ci bëccëg bi ñu xool seen weeru korite wi donc dañuy jàpp ne loolee ñu seen guddi génn jëm moom moom weer wi feeñ mu jàpp ne nag léegi dañuy moomale feeñu weer wi guddi gii lu weesu nga xam ne kon bëccëg bii du bëccëgu woor ba tax mu daal dog bañ a woor yooyu yëpp dañuy jàpp ne taawil gu jege la maanaam borom taawil gi am na saw su wóor su mu sukkandiku yooyu yëpp du tax alamaan war ko ca fay rek moo ko cay war loolu nag wute naag at tawilu albaidu taawil gu sori mooy goo xam ne lam yastanid saaxibuhoo li sababin mawjoodin maanaam amul benn sabab bu wóor bu mu sukkandiku kooku nag moom bu dogee itam ngir loola day fay ba noppi def kafaara boole ja niki moom teg na bëtam ci weeru koor gi mu wóor ko ne moom weer yi moom feeñ na nattabliwu ko ba mu ko waxee nag àttikat ba ak mbooloo mi nanguwuñ ko mu ne ah kon ne man duma ci woorante ndegam wax naa ko te nanguwuñ ko rek caal jàpp ne kon sañ naa bañ a woor kooku bu wóor des na ko alamaan mbaa mu ne tey duma woor ndax bis ne tey laa daan siburu mbaa bis ne tey laa daan gis deret rek daal sukkandikoo loola bañ a woor kooku bu demoon ba ca bis ba ca bëccëg ba na nga ko jàppe woon siburu sa ñëw mbaa deret di ñëw bu dee jigéen nit du tee rek moom mu war a fay ba noppi ñu alamaan ko boole ci rawante na nag nam jàpp woon siburu sa noonu lay ñëwee ñëwewu na mbaa nam jàppe woon deret ja noonu lay ñëwee farul ñëw sax far wala boog mu nàmptalu rek daal ne ah da nga xas naa nàmptalu day moom addis ba nee na woon ku nàmptalu sa koor dog na daal sukkandikoo ca loola lekk naan wéy kooku du tee mu fay ba noppi ñu alamaan ko wala mu jëw rek te jëw ñu koy nuroo lekk lekk yàpp ka nga jëw mu daal jàpp ne kon lekk na kon moom dog na kooram daal tàmbalee lekk ka naan kooku du tee mu fay ba noppi ñu alamaan ko ba tey bu fekkee da ko wóor ne moom ci bëccëg bi weeri feeñal na biig nga xam ne kon daa war a bàyyi bañ a lekk bañ a naan ndax sàmm ormay koor gi moom nag bu tey ko tayaatoo ko teewul rek muy lekk ka naan kooku ba tey day fay ba noppi ñu alamaan ko nii nu ko misaale nag boroom muxtasar xalil moo ko misaale noonu waaye da cee am yoo xam ne sukkandikoo wuñ ci ay waxam mel ne kookee nga xam ne daa nàmpatalu defe woon ne sañ naa bañ a woor kooko wax ji gën a wóor mooy kafaar du ko war fay rek moo koy war kon jàppal boobu nga boole ca itam ka nga xam ne ba muy xëdd fajar daa jege fenk rek waaye fajar fenkagut xam nga kooko dane woon fay rek ko koy war waaye alamaan du ko war jàppal ne kooko wax ji gën a wóor mooy faw alamaan war ko ndax xam nga ne loolu moom fajar daa jege fenk dong waaye fenkut mu daal jàpp ne rek mën naa bañ a woor kooku alamaan da koy war moom ndax taawilam googee tegu ko fenn fu wóor mu wuteeg nag koo xam ne bu ñu xëdd boobu moom fajar daa fenk mu jàpp ne ne kon léegi koor gi moom jeex na bu wooree itam du baax mu jàpp ne kon mën naa bañ a woor lekk rek naan te xam nga bu dee ramadaan moom daa war a ormal bis bi bañ a lekk bañ a naan kooku wax ji gën a wóor mooy fay rek moo koy war waaye alamaan du ko war waaye namal kafaarat naka kafaarat yi xalaamun war na ka nga xam ne aftara dog na mu taa am bi da mbir mi aji tey ko bi ak liñ ci lekk aw siisi wala ak naan aw jimaahin wala ak booloo ma xal xabaay ànd ak fay boole ci ki alamaan di war kay mooy ki nga xam ne dafa war ba noppi tey ko daal lekk mbaa mu naan mbaa mu joteeg ka muy séyal ci misaal muy góor gi muy jigéen ja mu tey ko joteeg moom ci koor gi waaw kay kooku moom moo war a fay ba nag boole ci fay alamaan nag boole ci wal kafaaratu kafaara ga fii daalika ci loolee itixaamu sittiina mooy leen juróom benn fukk miskinan ci ay miskin di kulli miskin ñeel bépp miskin muddul mudd bi muddi nabi ci muddu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa daalika loolee ahab moo gën a sopp ilinaa jëm ci dul malik maanaam xaf kafaara te anam yu bokkut waaye bañ bañ ci gënal ci yoonu malik mooy bu dogee ci weeru koor te tey ko bañ ne war naa def alamaan na leer ay miskin juróom benn fukki miskin kenn ku ne mu jox la mudd mu jullit du war a sori ak liibar am ñu koy ëppale liibar nag waaye liibar mel na ne moom digg doomu na ba tey ne mën nga ne koo xam ne ñaari loxoom taxu koo rëy taxu koo tuut daa digg doomu bu ko defee moom fees te tàllu ko bënk ko ba tey loolu may soo koy jàpp mu du waaye mel ne ak liibar daal moom yàlla na ca wala foofu ñeel na ko añu kafira mu kafaara bi xit raqabat ci goleelub jaam aw siyaami shahrin wala woor yaari weer mu tataa bi xëy ni aju toftaloo maanaam bu dogee ci weeru ko tey ko ñetti xeeti alamaan la léeg-léeg gi ñu weesu woon léegi moo ci gën waaye bu ko neexee jamonoy jaam amee mu goreelug jaam muy alamaanam ba tey bu ko neexee mu war yaari weer yoo xam ne susaloo boobu nag moo ci gën a metti yaari weer yi moom daa war a susaloo nga xam ne bu fekkoon ne ñaari fan la war a fay bu fekkoon ne ñaari fan la am alamaan te weer ay weer day war yaari weer mu susaloo mu dellu waraat yeneen ñaari weer ñu susaloo bu ko neexee nag du ci xel yaari weer yee moom noppalut ba mu tàmbaliwaat weer yi ci des waaye yaari yi moom daa war a susaloo moom bu dee ay fan yu bari it te muy woor it noonu lay def benn fan bu ne ñaari weer moom daa war a sësaloo wala yi sax alaaman du war koo xam ne aftara dog na yu xabaay ramadaan ci fay ramadaan ba taxam bi da mbir muy aji tey kafaaratun kafaara ku amee woon bor ci weeru koor ba nga koy fay nag nga dog ko te tey ko koy jëmmi fay ga rek mooy yàqu waaye kenn du wax ne alamaan war na la ca ba mën koo xam ne uxum yoo xamaleef na xale yi ci moom lay leen ci guddi fa afaaxate mu xiqi baax di tuwal fajar ci gannaaw fenku fajar fa xale yi war na ko xadaaw saw bi fay koor ga dañoo wax ne bu fekkee daa woor ba noppi nag lépp bëccëg ba mu far ko xëm mbaa la ëpp ca bëccëg ba da koo xëm kon moom bis boobu faaw da koy fay waaye koor ga du doy bu fekkee nag genn wàllu bëccëg ba rekk la xëm mbaa sax lu matul genn wàll ga te it waxtu fajar di bëgg a fenk àndoon naag sagoom kon dal nay baax googa koor doy na wala yaqdi du fay nag mina salawaati ci julliya illaa ma ndare la nga xam ne afaaqa xiqi na fi waqtihi ci waxtoom wa loolu weesu woon na ko maanaam bu fekkee dafa doon xëm bu dee ci wàllu julli moom ba mu ximee la ñuy seet ba xam lenes ci waxtu wa laab am ci baraka xaj na fa am déet su fekkee loolu xaj na fa julli ga war ko bu fekkee loolu xaju fa julli ga du ko war waaye mbax yi dana yàllu lisaa yi mu ñeen aju wor ay yax fa mu wattu lisaanihoo làmmiñam wa way jawaarihoo ak cëram ya wayu xasima te muy màggal min shahri ramadan ci weer ramadan maa la nga xam ne xasama màggal na ko allahu yàlla subhanahu soreel naa ko lépp leelul ci moom wataxalaate mu kawe nee na nag saa yoo wooree na nga sàmm say cër bu baax a baax rawante na saw làmmiñ ndax làmmiñ moom dañoo wax ne cër yëpp buñ xëyee dañuy xëy di ko jàmbat naa ko ay làmmiñ yow mi daal boo jubee rek nu jub boo dëngee rek nu dëng ay waa ji fexeel ba jub te xam nga dëgg la mooy sax moom saa yu nekk la ko yàllay bañ waaye nag rawante na ci weeru koor ndax xam nga ak mooy dana gën a rëy ci béréb sàngam mbaa jamono sàngam weeru koor na daa màgg lool lool mooy ci yàlla day rëy lool lool moo tax mu ne kon ku woor daal war naa góorgóorlu sori lépp luy xeetu mooy sàmm ay cëram bu baax a baax lépp lu yàlla bëgg ci weeru koor ci baril xeetu jaamu yàlla yi di ci jàngal xuraan ak tudd yàlla ak saraxeek yépp rek nga di ko baral ngir yàlla ci seen tuyaaba wala yaqra bu du jege assaayi mu aji woor ak nisaa a jigéen ña du wata in cik laal wala mu baachuret du caa génn jonjoo wala xublet du caa génn foon li lëbbati ngir bànneex fii naxar ramadaan ci bëccëgu ramadaan nee na ku woor nag muy muy góor muy jigéen na moytoo joteeg ka nga xam ne moom lay séyal ndax jëmi jote gi moom lu araam la te day yàq koor ga ba noppi nag alamaan war ca ndegam moo ko coobarewoo jëmi jonjoo gi laalante ci yaram nag wala fóonante gi dañuy seet moom daañu ko àtte léegi bu fekkee ne wóoru ko ne bu ko defee itam du tax dara génn ci moom kon dañ koy suivre yam ci bu fekkee bu ko defee dara mën naa génn nag mu daal di araam bu ko defee ba dara génn itam daañu ko leeral lu cay àtte ba wala yaxrumu du araam nag daalika loolee xale yi ci moom fii lay lii ci guddeem nga daa wax ne nag bu wooree nag ba jant bi so kon digganteem ak fajar di fenk moom sañ naa lekk sañ naa naan sañ naa jote sañ naa bànneexu ci yaram digganteem ak kamu séel ak yépp waaye nag ba mu des bu fekkee day kooru lixtikaaf xam nga kuy lixtikaaf moom ku dégg bëccëg ñoo ci yemoo du sañ a joteeg kamuy séel du sañ a bànneexu ci moom itam ci laalante ci yaram ba tey nga boole ci bu dee woor kafaar ak viheur ba tey kooku noonu la wala boo ko fekk sax mu armal aj xam nga bu fekkee mu armal aj itam armal nga mooy tax du saña jote ak nga xam ni moom lay séer waaye bu dee kooru kese daal moom mel ni kooru ramadaan kese te leneen raxu ca bu jant bi xasee so rek sañ naa jote ak nga xam ne moom lay séel sañ naa laalanteeg moom bànneexu ci wàllu yaram te du wàññi dara lekk ak naan nag moom du wàññi dara moom bu jant bi xasee so rek ba kera fajar di fenk mën nay lekk mën nay naan te du wàññi dara wala ba asa ayit ay yusbiha mu xëy dunu ban di aji amee janaaba dina watt i ca laal ga dane nag bu fekkee ci guddi ga da ca amee woon janaaba joo xam ne ak jotee ko waral mu yéenee woor nag waaye mu yéex a sangu ba far fajar fenk jëm suba ko it koor ga dara du ca sikk rawante na kon nag mu amee woon janaaba joo xam ne gént rek moo ko waral mu yéex koo sangu ba fajar fenk jëm suba loolu lépp du wàññi dara ca koor ga teewul nag mu sangu woon ci guddi ga balaa fajar fenk moom moo gën te it bu sanguwul ba fajar fenk na daal di gaaw sangu joox farate suba gi bala ko waxtu waa raw ndax bu ko waxtu waa rawee rek mu daal doon bakkaar bu mag a mag wa man yutazaku bànneexu fi nahaar ramadan ci bëccëgu ramadan bi mu daa choret ci ak jonjoo aw xubalit wala ak foon fa am saa te mu génne masiyu li taalik ngir loolee fa xale yi war na ko alxadaawu fay nee na koo xam ne dafa doon laalanteeg jigéen jonjonte ci yaram baa foonante ba ma siy génn ci moom fekk mu woor kon des ko alamaan waaye koor ga dog na faaw dana ko fay te nee nañu xalaat ga ak xool ga it noonu la moo xam daa yàggal xalaat ba mbaa yàggal xool ba mbaa yàggalu ko ñoo ci yemoo bu fekkee ma si rek génn ma si moom fay rek lay waral waaye du waral benn yoon alamaan wa in taxam ma dem tey na zalika loolee xataa am naa ba mu génn mel nii fa xale yi war na ko al kafaaratu kafaara xam nga dañoo waxoon ne boo wooree te wéeru la ba xam boo jonjontee ci yaram ak te ngay siyal ci misaal danga tax dara génnam déet kon yow doo ko sañ léegi nag boo demee def ko nag léegi ba xar man yu génn nag kon nga boole yaaru fay ak alamaan war la ca dañoo wax ne su fekkee la génne man yi bu moom mooy fóon wala jonjoo ci yaram wala foxante moom faaw rek day fay def kafaara boole ci bu des nag bu fekkee da ko tayoon di xool wala muy xalaat ba mën yu génn kon nee nañu bala caa kafaara war moom mu yàggal xool ba ak xalaat ba ndegam xam na ne moom bu ma saa yàggal ab xoolam ba ab xalaatam mën yu génn bu noppi teewul mu tey ko yàggal xool ba ak xalaat ba bu mën yu génn kon ba tey day fay ñu alamaan ko boole ci koo xam ne nag moom la xaman ci boppam mooy su ma saa yàggal ab xalaatam ci googu wàll diggante góor ak jigéen mbaa ab xoolam itam du tax dara génn bi yoon nag moom ba mu ko defee far dara génn ca lañu wute ba xam ndax kafaara war na ko wala waru ko allah xam yi moom la mu gën a jàpp mooy du ko war moo tax boo xoolee salaabali mun naa la wa amma taammudu ixraajihi bi nadarin aw fikrin fala budda min al istidaamati min man aadatuhu al inzaalu bihima aw istawat xaalataahu wa amma man kaanat aadatuhu assalaamata maa idaamatihima fa taxallafat wa am naa fa qawlaani moo ci nekk